dalee jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyando wolof njaay nee na def loo xam wax loo xam boo tëddee ne la waa Thione Seck jamono ji ma ngi ci guddi gu bët setagul waaye sax mën nañoo wax ne Thione Seck bàyyi Wally sek ma ngi ci guddi goo xamante ni gu lëndëm lëndëm la yéen kaay gi di réew mi quotidien l'observateur Vox Populi mu ñuy xamalaan ñu cour d'appel bu Ndakaaru moom nag daal nay wax ne enquête bi nga xamante ni defoon nañ ko si Thione sek ci lu jëm ci loxool ak njaaxuma ki tojaange ci ay faux billets enquête bi maanaam munuñu ko sànni sa àll ba am na ci nag loo xamante ni daal danañu ko daal di téye loole nag neexul benn yoon avocat Thione Seck journal bi mu ñu xamal laan ñu jamono ji kay Thione Seck nag dañ koo bëgg a yóbbu yóbbuwaat ko ca kasu ba yéen kaay groupe promo consulting bi mu ñu xamal laan ñu ca atte bu njëkk ba dañoo bàyyi woon Thione Seck ndax dañoo wax ne article cinq bu UEMOA maanaam respecté wuñu ko ba ñu koy déglu ay avocat am fekk ñu ko woon a cour d'appel Ndakaaru ni ki démb la moo xamle nee na loolee day dëgg la waaye nag enquête bi yëpp yëpp jekk-jekk rek jël daal koy annulé loolee moom mënul nekk journal bi du l'observateur ak laasa mu ñu xamal lan ñu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février la ñuy atte ki nga xam ne maanaam mooy Thione Seck waa grand place mu ñu xamal lan ñu Thione Seck nag jamono ji moom ak i avocat daan nañuy rungoo wuti fi nga xam ne mooy cassation yéen kaay gii di laasa ak vox populi mu ñu xamal lan ñu Lamine jaak ba léegi nii daal ma ngi ci ay giraawaali ak i njaaxum yoo xamante ni kenn xamul kañ lay jeexa ni ki démb nag la France la ñu waroon a atte ki nga xam ne mooy Lamine Diack waaye mbir mi la tribune nee na dañu ko mujj dàqandi ba nag ci weeru juin moom Lamine Diack démb daat nay wax wax ju daw yaram dafa mel ni sax moom Diack dafa namm nag Sénégal ndax nee na toog na lu toll si ñeenti at yoo xamante ni ñëwul ci ndakaaru ay atam toll na si juróom-ñett fukk ak juróom-benn jamono ji mag la moom Lamine Diack nee na nag mbir mi daal mbir mu doy waar doy waar la soo muy tuule nag moom Lamine Diack mi daal danañu ko tëj si kaso bii lu toll ci fukki ati kaso laas yéene ñu fekk fa Ousmane moom nag ma ngi naqarlu bu baax a baax tournée yi nga xamante ni ma ngi ko doon amal te nguur gi daal di def ay sabotage réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu collectif ñoo lànk ñoo bañ ñoom nag jamono ji nee nañu pare nañu ngir toog ak Macky Sall waaye nag daan nañu koy tegal ay condition ndax nag nee nañu bala ñuy toog ak Macky Sall dafa daal di libéré ñi nga xamante ni ñoom la téye ci kasu bi te nag suñu toogee ak moom daal amul lenn loo xamante ni Macky Sall mën na leen saa yey ci lu jëm nag ñu dakkal seeni manifestation te deltuwul ginnaaw ci yokk gi nga xamante ni daanaka yokk njéegu courant gi journal bi mu ñu xamal ndaje mi nga xamante ni fukki chef d'état doon nañu ko amal ni ki démb ak waa Union africaine Macky Sall njiitu réew mi daat nay wax ay dëggam ku nar a dee wéqu daat nay wax ne Afrique daal mënuñoo lijjanti seeni mbir ci jamono joo xamante ni africain yi teewuñu sa ngi ci las yéene kaay ma ngi ci exclusif pëccaxoo gi am ci biir parti bi di APR ba léegi ni Macky Sall lijjanti ko da koo jafe loola ba tax nag commission de discipline bi Macky Sall indiwaat na ko journal bi mu ñu xamalaan ñu en tout cas ni ki démb seen ndaje mi Moustapha Diakhaté ak Moustapha nañ say ci ab dàq journal bi mu ñu xamalaan ñu Macky Sall nee na pëccëxoo ak giraawaali geeka njombe gi nga xamante ni moo am ci biir APR mel ni sabar ko tasa loole la bëgg mu daa di dakk yéen a kaay gi de la turbine mu ñu xamalaan ñu Abdoulaye ak Macky Sall seen juba ba neexoon na loola en tout cas daal xalam demoon na bàyyi neex mbuum nga daa di dokk ndax Abdoulaye Wade ak Macky Sall jamono ji ñoo ngi ci waat ay jafe-jafe ñi ko waral nag mooy faucon yi maanaam yàqkat yi saytaane yi nga xam ne ñoo wër Macky Sall ak saytaane yi nga xam ne ñoo wër Abdoulaye Wade am na benn responsable boo xamante ni bu bokk bokk PDS la mu xamal waa tribune nee na am na ñu nekk ci biir PDS ñoom nag bëgguñu benn yoon Abdoulaye Wade bi nag nee na dafa mel ni Abdoulaye Wade def na waru garam ginnaaw bi ñu juboo dem na ca palais ba seeti Macky Sall journal bii de laas mu ñu xamal nañu en tout cas gi ama diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall ci bopam la ñu jam baaraamu tuuma moom la ñu joxar bi baaraamu tuuma yéen kaay gii di source a mu ñu xamal nañu Karim Missi ñoom nag dañoo bëgg Abdoulaye Wade génne PDS ci front de résistance nationale national ndax ñoom dañoo jàpp ne ay caaxaan rek la yéen kaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xam la ñu ca Ouest Foire Adama fay mi nga xam ne rakku Marème Faye Sall la ñoo ngi koy tudd ci ay njublang jëm ci wàllum suufa hôpital général bu Grand Yoff dafa am benn xale boo xamante ni ay atam tollu ci fukki at ak ñeent maanaam dañu ko doon faj far mu mujj ñàkk ba bakkanam waajuru xale bi nag tar nay porte plainte waa hôpital général bu Grand Yoff ndax journal bi nee na hôpital bi dañoo opéré bi te nag yëguluñ ko benn yoon ñi nga xam ay waajuram journal bi mu ñu xamal lan ñu njàngameeg njàngale mi jamono ji daan yi nga ñoo ndax engagement yi état bu Sénégal jëloon ba léegi ni France dali xëdde na te nguur gi da leen di caaxaanloo maanaam di nax waa SUDES ñoom tim danañu dem nag ci ab grève ndax ñoom tim nee nañu la Macky Sall si fi ak ñoom daal di fucc lenn yéen kaay di Sud Quotidien mu ñu xamal ñu dëgg gi kay mooy jamono ji école sénégalaise bi maa ngi ci guddi gu bët séddagul la vox populi mu ñuy xamalaan ñu man réew la ñu yor te réew mi nag jot na nag ñu daal di koy sang ndax ca diwaanu Parcelles Assainies unité 7 foofee nag benn waay boo xamante ne la ab paala buy wéesturu Mamadou Ndiaye dafa luye woon benn xale bu góor ba mu demee ba xam ne xale bu góor bi jaay kotub drogue la mu bëgg koo génnee xale bu góor bi daal di lànk kandaare bàyyi ba paa bi di sees mu daal kay koy taal paa bi ñàkk na bakkanam xale bu góor bi maam Thierno la tudd jamono ji daan nañ koy teg loxo yéen kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Boy Niang moom nag dafa mel Balla Gaye numéro 2 daat nay wax ne Balla Gaye 2 mi nga xamante ni nee du bëreeg man loolee daal affaire am la Balla Gaye 2 li mu ragal mooy ma diw ko kaasu foone bu tàng bi nga xam ne moom laa amee waxi Boy Niang 2 la ma ngi ci sunu làmb